C3S machine ak i outillage yu baax am na ay xeetu verre bu ngeen soxla ay plexiglas PVC ngir seen création wala décoration am na ay panneau composite alucobond ak ay profilé mur rideau ngir yokk taaru seeni façade bu dee décoration C3S leen defaral seeni bureau wala seeni kër ci noo leen ko bëggee ak i mobilier inox verre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 man ngeen a jokkoo ak ñun ci 33 859 70 wala ci sunu site internet www.c3s.sn. di jiital ci nuyoo bi sunu sang bu tedd bi Cheikh Mountakha hafizahullah wa raa yàlla na ko fi yàggal lool te wéral ko may ay te ndam lu ñëw mel ne bii nii mu sottalee néegu yàlla bi ba tey ñépp ñëw di ndamul ndamul lislaam yàlla na ko yàlla dëgëral ba mu ko fee ca Touba daara Sëriñ Touba jam fa dekkal yàlla defal ko tawfeex ba mu ibbi ko donc di fa jàng di fa am ni lijaasa ba mu sóobuwaat yeneen naar yëpp jullit yëpp jariñu ci di nuyu baax it ki yàlla sottalee liggéey bu rëy bii ci loxo muy jëwriñ Cheikh Bakary Faye dëgg-dëgg ku taxaw fii sa xol dana sedd lool xam ne taxawaayam rëy na lool yitteem it rëy na kon yàlla na yàlla dëggal bam yàgg taxawu sëriñ ci liggéey yu mel nii di borom xam-xam yu sell yi fi teew ci njiital Cheikh Moustapha Jabara ak mbooleem comité scientifique bi mu àndal ak waa daayiratu Rawdu Rayaahiin ak mbooleem yeneen tarixa yi teew yépp ni ko sëñ Sam bu soo waxee rek jataay bi bis bii dañ koo tuddee nitu yàlla ab yarkat ab suuf yi te ni ci waxtaane yépp nit tasawuf la ak yar sëriñ Ahmadu Mbàkke dégg nañ nit wax léegi rôle bi tasawuf di def ci defar bakkan ak defar nit bu mu mel ne thème bii ci toftal day jëmmal théorie ak xalaat yi mu fi indi yëpp loolu mu wax ne noonu la tasawuf di defaree doomu aadama nan lay defaree ruu nan lay mooñee nit ba génne ko mu doon ab jamaa dafa soxla nitu yàlla ku mat sëkk ku ñu jaarale fañ la war a jaarale ba nga mat nopp di matale di yar di defar ruu kon dafa mel ne loolu sëñ Ahmad doon waxtaane sëriñ Saaliw moo ñëw doon ko dund doon ci defar nit ñi ba am ci résultat yu rëy rëy yoo xamee ne fu nit toog ci réew mi da nga gis ay jeexitalam ci wàllum yar ak defar doomu aadama sëriñ Saaliwu nag dafa ñëw ngir mottali mission sëriñ Touba te ishaara sëriñ Touba junj na ko ci ay waxam lu bari bay yuñ baaxoo wax فهب لي العلم الصحيح والعمل الصالح الذي يكمل الأمل donte ne alamalu saalix waaye gis nañu amalu saalix ibnu nuux amalul xeyru saalix walakin ibn alxadim innahu amalun saalixun yukammilu al amal insha allahu taala kon mooy Euh, doom jëfi baayam la kon continuité jëfi Sëriñ Tuubaa ci defar ruu ci defar bakkan ci defar nit ku baax nga xamee ne moo nekkoon mission yonent yi ak gaa yu baax yi yàlla ñi fi indi ñépp defar doomu aadama moo leen taxoon a ñëw dale ko ci sayiduna aadama alayhi salaam ila axiri al anbiyaai wa xatmihim sayiduna salaam ñoom ñépp fexe ba defar nit ku baax nit ku baax bu amee mooy defar kaw suuf nit ku baax bu amee lépp lu jag ci suuf nit moo koy def waaye bu nit yëgut bu nit ku baax amul suuf si yàpp wala tufsidu fi l ardi baada islaahiha nan lañuy ñuy defare suuf nag mooy defar nit rek kon sëriñ Touba dafa ñëw ngir mottali liggéeyu yonent yooyu fi jiitu woon mat sëkk di doon doonal yonent bi alayhi salaatu wasalaam te mat ko sëkk ci zaahir ak ci baatin gis nañ ne bokkoon na ci mission sëriñ Touba ñaari mbir yu am solo bi ci njëkk mooy niñ ko waxe léegi defar tibb doomu aadama bu bees mooy almuridu saadiq koo xamee ne dara du nekk yitteem ci kaw suuf lu dul amal ngërëmul yàlla fexe ba li yàlla bëgg ci kaw suuf mu mën a am suuf si jag idil muriidu laa yuridu abada gayra rida rahmani haysu qaswada kon defar al nit ku baax defar tibu nit ku bees muy al muriidu saadiq koo xamee ne nokkeem doxam yëngutoom dalam jaamu yàllaam commerce lu muy def day bëgg li yàlla bëgg am moo koy motiver moo koy tax a def kooku la Sëriñ Tuubaa doon defar muy bi ci njëkk beneen bi mooy defar société bu baax al mujtama al faadil société idéale boo xamee ne day mel ne Touba mel ne ajjana waccal ilaahi maskani Touba Touba abad mislas miya mislas miya mislas miya bi jaayi xayri man abad defar suuf si ba mu nekk alfirdawsul mawuud nit man fee dund man fee jariñoo mën a teg mën a am dund gu baax ngir préparer ngir mën a am texeeg tey am texeeg ëllëg kon ñaari tomb yi muy nit ku baax ak société bu baax lépp li Sëriñ Tuubaa doon liggéey ma des na koo dugal ci ñaar yooyu li mu fi nekke ci kaw suuf lépp loolu rek la fi doon nekke bi mu fiy jugee dafay bàyyi ak njabootam bàyyi ay taalibeem yar ay nit bind defar ay nit ñu koy wéyal di jëmmal mébétam googu di ko amal loolu mu leen bàyyee ku ne am nga mission boo ci war a taxawe ñii ñi nga yor daara ya ñii ña yor dëkk ba ñii ña ngi koy liggéeyal ci xilaafa ga ku ne am nga foo féetewoo di fa liggéeyal yàlla di fa liggéeyal Serigne Touba mu doon sa mission bi ngay liggéeyale Serigne bi ci nit ñi Serigne Saliou radiyallahu anhu wa dondu sëriñ bi ci defar doomu aadama yàgg na koo wax ne xilaafa geeg li ko ci dal lépp nee na ab liggéey bu ko dab la rek waaye liggéeyam bi dëgg dëgg bi ko Sëriñ Tuubaa bàyyee mooy defar doomu aadama ak yar ak tarbiya mbooleen waa ko Sëriñ Tuubaa yi gis nañ mu jël ku jël ndaw indi jox ko walla ñu jox la nit wala ñu jox la xale nga ne demal joxal ma ko sëriñ Saaliw ndax kat lii moom la ko sëñ Tuubaa def ab cërëm jëlee nañ wax ju mel noonu ci sëñ Abdul Qaadir jël wax ju mel noonu ci sëriñ Shuayb jëlee wax ju mel noonu ci sëñ Abdul Ahad wax ko ci sëriñ Fallou ak ci mbooleem doomi sëriñ Touba yi ñépp xam ne kon mission mooy yar ak defar doomu aadama sëriñ euh, Abdul Ahad mu sëriñ Moodu Abdul Qadir nee na ñoo bokkoon yarondoo ci daara sëriñ Saliou bi muy baayam di ko jox sëñ Abdul Ahad sëñ Moodu day murid saaga boo xamee ne day daanu génn ay xaal di ko dikkal nee na bis moom bi muy nekk ndaw nga xam ne àggagul ci fer sax baayam dafa xaalu jëw indil ko sëñ Abdul Ahad ne ko dama bëgg ci moom nga defar ko te damaa bëgg mu am ngërëmul yàlla sëriñ Abdul Ahad ne ko jël ko yóbbul ma ko joxal ma ko sëriñ Saalix loolu de fa ko yaakaare bu ko wutee nam ko war a wutee dana ko fa am insha allah aw kamaa xaal kon loolu doy na sëkk ci ne loolu mooy admission sëriñ Xamsatu mu sëriñ Abdul Ahad wax na it bi ko sëriñ Abdul Ahad di yóbbu ci sëriñ Saale wax ju mel noonu wala ju gën a rëy jooju sax ju mu wax kon wax yooyu yépp rek li wane mooy ne kii am na lu ko yàlla jagleel ci liggéey bii moo tax sëriñ Saale teel a xam mission bi ko bi mu amee teel koo bàyyi xel jugut rek di def liggéey bu rëy bii te jaarul fi mu war a jaar xam na doy na sëkk la doon doon Sëriñ Tuubaa doy na sëkk mu bokk fi mu bokk waaye xam na ne mission bii pour mu taxawee ko dafa am lu mu laaj ci waajtaay ci waajal sa bopp ci xam-xam waajal sa bopp ci jaamu yàlla waajal sa bopp ci jikko waajal sa bopp ci ak taalibe waajal ci sa bopp ci mbooleem li Sëriñ Tuubaa nit ku baax mel ko loolu da koo teel a xam teel caa xam mission ak li koy xaar mu teel ko bàyyi xel jaar fi ko waajuram bi jaar loo tax mu xam ne pour lii mu war a liggéeyal Sëriñ Tuubaa ci defar doomu aadama day laaj xam-xam day laaj xam-xam bu xóor bu waajal boppam fi indi ah? euh, daara yi gën ñu jaarale ko fa waaye tawfiix weesuwul nga am daara bi baax ak jàngalekat bu baax waaye boo farlu wut nangoo sàkku xam-xam nangoo sonn nangoo gëstu yaakaar naa ne man nga caa bañ a am ndimbal waaye ñii doon jàngaloon moom di ay magam ak rakkam ak ñi ko doon jàngal ñëpp seedeel ko ak farlu ak nangoo gëstu nangoo tumurante nangu coono nangoo jël alalam lépp lu mu am def ko ci xam-xam ba yàlla may ko ca daraja yi gën a kawe ñépp ñi ko jàngal ci fi mu jaar lépp seedal ko seede soo xamee ne doy na sëkk ci maqaamaam ak dayoom ci xam-xam te seede si ci gën a gàtt rek te gën a gaaw mooy sëriñ Sohaybu di borom xam-xam di bindkat daana wax ne Sëriñ Saaliw li ko yàlla may ci xam-xam mën naa doxal réew mépp wax ne xelam mu xóot loo jaw loo wax benn dana ci dégg fukk wala lu ko kon boobu rek doy na sëkk ci seere ci xam-xamam waaye waajal boppam tamit ci li mission bi laaj ci defar sa ruur ci wut yàlla ci sàkku ak leer mënoon na ne doomi sëñ Tuubaa laa sëñ wax na ne képp kum ko yàlla may ci gannaaw tukkeem bi yàlla boo da ngay ñëw judduwaare maqaama yi gën a kawe